di gunal day garam di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara nga àddina wóor na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara yéen mbokk jullit yi daje yépp sëriñ Mountakha mi ngi leen di nuyu te di leen nangul seenub siyaare nuyoo bu nee na mi ngi ci jiital kilifa adduna yi nga xam ne ñu ngi fi mu tam la ci Antoine Diome ak ñi mu àndal ñëpp ba ca ña gën a ndaw ci bureau ya te mi ngi leen jotal seenu cant eh, di ak cantam bu baax di leen xam ne li ngeen def de xam na ko bu baax a baax ndax boole ngeen ñett yoo xam ne lu am solo ci nit muy seen jëm ak seen ñaq ak seen waxtu lépp boole ngeen ko indi ko ngir sëriñ bi warmaale ko ko loolu muy leen di sant bu baax. ñaan suñu borom mu dool taxawaay bu baax. te dool te doole barkeeli seen lu koy yaatal. nga xam ne fii ngeen nekk ah noo ngi leen di sant waaye itam war ngeen sant yàlla. ndax ab teen la rek bu ñu roote kenn ku indi sa baat indi sa ndab boo roote ñu duyal la teen bi ndoxum paju aaju moo ci ball. kon ñun ñu ñu ñu fi nekkee ni ngeen fi war a ñëwee yaatal nañ leen nag bu baax a baax a baax a baax dañaare nag ci dara si bi lépp loo xam ne aajo woo ñëw te ñëw ko fi su moom defal leen ko boole ko bindee ci dara sëñ bi di leen sant bu baax di rafet sant bu baax di ji sit nag jëf yi nga xam ne jëf ngeen ko fii diggante ndox ak ak ak ak i làmp ak i yoon ak yeneen yeneen ak yeneen ak loolu mu ci lamit ba leen ko leeralal ah di sant na ginnaaw loolu toogal gannaaw bu loolu wéyee ñu dool nag di sant kilifa seen kilifa nga xam ne mooy leen yabal ndax mënoo leen yebal feneen mënoo leen téye waaye waaye am ngeen nag sañ su yéen seen bopp ngeen ñëw seen bopp ngir yéen bëggal seen bopp li wut li wutukaay la kon nag noo leen di sant baax di ko li sant ko sant ci yebal si mi leen yebal di ko sant ci ndimbal yi nga xam ne ak taxawaay nga xam def na ko yëpp di sant ginnaaw bu loolu indi ci suñu bokki bopp yi nga xam ne ñoom ñooy màggal di dalal ñuy màggal si. sant na leen bu baax a baax seenu taxawaay ndax ñoom it képp laay seen kattan lu ñu mën taxawaay ak jëf def nañ ko te fu nekk fu ne fu kër sëriñ Basiru nekk fu ne bokk yi fekk nañ ko fa ak seen taxawaay ak seen pas-pas ak seen bëgg ak seen kon loolu noonu lañ sant leen ñaar bu baax a baax loolu ñëpp ñu dal ñu dellu maase ñaanal ki nga xam ne mooy sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa Mbàkke. ñu gën koo dolli ko jàmm ak tal ba gën a mën a ànd ak ngeen nekk mu bokk nekk ci ginnaawam ñu liggéey liggéey mu jëm kanam jërë ngeen jëf tubaar ka sant nañu na ñëpp tàllal na ñëpp tàllal na bi fooy na rek tàllalal amin amin na tàllal amin amin amin amin amin min min min nal day garam di way ak sant si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara nga àddina wóor na yaa nu jox seyxi bamba jaara ma jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak liggéey ko may soxna jaara